waaw Namsé comment vas-tu. ça va je vais bien. comment nga ça va alhamdulilah. naka euh, liggéey bi. ça va ça va kaw. ça se passe bien. ça se passe très bien. très bien parce que même moi même je voulais te féliciter parce que gis vraiment depuis ñu waxtaan euh, maa ngi commencé à quoi am manière de neex ci site bi quoi gis c'est sa c'est très bien et vraiment je te je te félicite quoi. merci hein? merci. c'est très bien mais à propos vidéo boobu ñu tourné euh, fa ngeen ci toll. waaw dama sama góor nu mu def nag à l' sa góor de nangoon fa woon ku ko xool xam ni boobu bi am na lu ci nekk ci ay problème waaye am nag man maa ngi toog rek fees sama place dell koo sëyal nangami at mu xëy soppi ko xaw ma lu ko changé xaw ma lu xew gis nga man aada am seetlu gis nga Ali ba ma ko xoolee xam Ali ma ma xamoon démb ak bërki démb xam ne àll mii am na lu ne ci boppam bi kii am na lu ne ci moom

ah da ana Alimar mi fi moom da laa soxla. Alimar. waaw. dafa génn. dafa génn. moom laa soxla woon sax. waaw ñu ngi ci montage yi pare nañu ah. pare nañu ci montage yi. Ah. voilà donc ce que tu vas faire mooy tu vas me la précieusement da koy denc. dégg euh, xam naa ne du yàgg. danaa ci wax li mu ci war a def. Hmm? mais vraiment gardel ma ko bu baax dégg nga. dama ko publier ah ko garde ko rek. après dinaa la jox ay instructions à propos de ça dégg nga. mais encore une fois mes félicitations c'est très bien. il faut continuer comme ça. Massar moom noonu la il faut le mettre de côté dafay yàq il n'a rien compris. Mm-hmm. bon mais yow vraiment. tu as toute ma confiance il faut continuer comme ça. dégg nga merci beaucoup merci DG. voilà au revoir merci DG. merci beaucoup Mame Seye. tax ah, na kon Adam maa ngi ñëw àgg kër ga kon. maa ngi ñëw ma ñëw dem na ngeen waxtaan bàyyi ma ñëw dem. toogal xadi caam mi ma la doon wax bu xam. waaw. kii yaayam la. xaritu Mariam. toogal amuñu nëbb. waaw ma yaayam. ci yàlla. macha maa ngi doon wax sax damay ñëw sa kër. laa dégg la Adam mais ñàkk jot bi la rek am benn problème. may muñ rek. Mhm. yàlla mooy xool la ka soog mu def ko jaamu. te nag nit day nangu ndogal rawatina ñun jigéen li la dal metti na ba ci kanamu yàlla jur sa doom yar ko fa nga ko war a yaree tàggat ko ba mu am bii âge nangoo jàng ponkal bu toll ni baayam def ko nii ñu ko def metti na waaye man maa ngi lay xamal ni la ni fa ma toogoon démb ak barki démb tey laa fa gën a toog ngir Myriam ak Xadijatu lu mu laaj dinaa ko def ma bëgg nag nga muñ ndax yàlla lu ko neex lay teg jaam man de lu ma ci mën insha allahu rabbi dinaa xar sama tànk tubéy bii def ko ci te itam alimaar stress bi ma ci am moom la ci am ndax moom it lekkul naanul xelam yépp ak xalaatam ci xadi la nekk yàlla baax na yàlla baax na maa ngi ñëw dem. soxna si nga baal ma tuuti. dama ne lii laa bëgg bu leen ko bàyyi mu sedd bu leen ko bàyyi benn yoon mu sedd ndax li ci kër yi mi ëpp na. dégg nga nijaay yaa ngi jël jarbaat yi tëddee ci biir kër yi rakk yi di ko def mag ñi di ko def rakk yi ñuy nëpp nëppal ci diggu kër am mat seen woyee di na ngeen ko ba soo bëggee nag procureur danaa la moom sama càmm la ñoo bokk bàyyi waaw waaw yóbbu la ca met ay moom sama xarit la ay bi xam naa ko jeex na ma ngoog bu ko defee boole leen ndax lii ëpp na waaw bu ngeen ko bàyyee mu sedd bu ëllëgee ñu def lu ko raw li ci kër yi dafa ëpp li ci kër yi lii kenn du ko nëpp nëppal waaye déedéet waaye lii aadam gis nga damaa bëgg gis nga sa waye bi gii daa baba ngeen bàyyi ko waaye bàyyi ma waye bu ma ne maam benn bañ nëpp nëppal yii ba kañ danañ ko yóbbu ba fa mbaxane doone benn ñu yoon may nag ñu jël ndax léegi bëgg xalé bu ndaw moromu bàyyi leen léegi leen ngeenal yaq addinaam ngeen bëgg taxaw diko ko ne ko diko nepp nepp pour la ay ma waay yow xam sa numéro bi dina ko jël ci soba yalla jël ko bu la ci am dara lu la nakari soba yalla na ci and ak yow may dem soxna si merci ay dem wa ko nit ma wa ko Mam Sey ça va? Ah, ça va ça. Va bien. Mais Mam Sey, on a une belle vidéo concernant notre ami Alima. aliment oui. ba léegi yéen vidéo boobu lu ngeen ci nar. tu sais Massa vidéo lu ñu ci nar vraiment loolu moom ça te regarde pas. ñu def noonu kon. waa kay. may merci waa kay soxna may kontaan naa. eh Allah nga foog ne lii mettiwul jur sa doom fa nga ko war a juree dellu di stressé wu nii li metti na ba ci kanamu yàlla mais yow mais mam say yow yow sa directeur buuba mais dofloo na la ba dugalal ci jeu dofam yi mais xam ngeen xam nga yow kuy Alimar mais Alimar c'est notre ami d'enfance

gis may ma jàmm sa waye di nga nekk man dama cee newul magum jëm mu war naa jëm doon moromu bàyyi ni def ko ne ko tëll ni yàq àddina ba pare nga taxaw naa dangay massa di neex di leesal nii pour lan. waaw léegi dangay sóor fameem ndax mën na nekk koo xamante ni ginnaawam dafa yaatu. moom est-ce que xam na ni ma kilifa la moom est-ce que xool na famille am bu ñu def ni moromam doomam ah. man gis nga seen waye gi ngeen nekke newma ci seen yi ngeen nekke tax fi na dëkk bi yépp tass na ndax li ah pour lan man li bu ngeen ko bàyyee mu jàllit man duma ci bàyyi mu jall luma ci man bu sobeel na ko def ñibbi naa ay chéri wayet gi nga torop maa ngi dem man xaar ma ko ngeen cay na sunu waajango amaal ah, ko wax de ku dem mak gem yam ci kaala gi foo jëm day saa suñu bopp xonkee moo ci man kii lañ doon wër far taseeg moom géer gu baax gi nga xam ni fu nu tasanteeg moom mu jox ñu junn yu baree baree bari barke alxuraan dañ doon wëri ku baax hmm. taseeg jóoba jibba mii nga xamante ni sotub la jor la lu doon mu fatim ngay la sin gis jam kodd sam da ba jëg jóg ko may borom maami damel yaa ngi 32 damel ci kajoor yépp sa koo ci lim sa hmm. du yow ko bo demee lambay ya ko mom réew mi ñi nga maasal fekkoo leen fi de job ñoo ngi nii nag dëkk bi warna suñu kaw dëkk ñu bëreb dor ma nak soxna sama soxna si nak ne ko ñu sétu monsieur job nak mu déwé nak ha na nga daan def ak ñun rek sék ba ni xare ma ma noonu monsieur job mi mo man ci soxlay du la ko wax ko sa baye ma noon baayam ja ya ko man ya ko man hmm. tax sa sa kër gi bu ñu ñew banex ni bu ñuy génn bànneex la ñuy génn. maa la ko wax de kenn du yow. na ci say raw nag soxna si korog fi leen ko fekk waaye suñu waxtaan neex na. xaalis bari lañ jox. walaay barke alxuraan. xaalis boobu mu leen jox tàggu ma. Hmm? nga yéen da ngeen yàq askan wi ngeen. déedéet kenn ko may dañ koy teral. waaw am na layoo lay. na kenn du may dañ koy teral. ndax xam-xam ba. Hmm. ndax def du baax ja. Hmm. ndax wax ju rafet ja. mais kenn du ko may ndax dafay ñaan. dëgg la. gëwël dañ koy teral yow nag Seck. Hmm, woowoon naa la fii ba nga ñëw ma ne la fii usine ndox la. la de. ñëwal nga liggéey fii di fi sutur loo am bokk sa soxna si. ñëwuloo xëy ñaan bay gën a yomb ci yow. jàmm yi ya. yaam yaa ngi si jàmm maa ngi si jàmm waaw maa ngi si jàmm ana Xadi Xadi mi fa tota te daal de Xadi dafa maa mere waaw mm. ah, parce que keroog dama ko woowoon pour ñuy waxtaan mm-hmm. ci problème am bi mm-hmm. mais man waxuma ko woon dara lu aay parce que dama doon xool rek mm-hmm. état de santé am man fan laay la joor fu mu nekkee sama maam ah, lan nga ci xam xaa

ñaan gi mënul ñak nak bu ngeen ko génnee nak ñu téral leen mais ci ay ana man ana yow wax ju non tagaté man je suis comme ça. vous avez une fonction d'historien dans ce pays là. monsieur Mbengue daal réew nasaraan yi mu demoon jàng ñëw il faut que mani nga déglu ma ah. sec il faut que ngeen fexé ba nga xamni yeen li nga xamni sen mami mom la leen bàyyi ci xam-xam ci taarix ci réew mi ngeen gënné ko jël ñaan bi teg ko fële bu ngeen ko génnee teraanga fekk ci leen loolu la ñuy def parce que suñ bu njëkk ba loolu lañu daan tereree géwél yi ndax seen rôle boobu ñu daan joué mais tey jii yàq nañ ko ndax ñaanaante bi parce que moo gën a yomb. monsieur Diop tey xameetuñu de toute façon. Mhm. Euh, Seck nee naa la usine ndox baa ngi nii maa la ko waxal nag te duma la ko waxal nag ñëwal nga liggéey si ànd ak sa soxna lu ngeen am ngeen suturu. damaa yàkkamti nag xalaatuma ko nag. gomuma def ko def comme déplacer wu ngeen ba ñëw ba fi man nday ñun li leen doon li leen xam dama bëgg ngeen do neex man nga ñu koo terale waaye sunum cosaan moom doon ci jële mukk xamuñu bojj xamuñu wal xamuñu fital xamuñu lan lu wax dama soxna ci waaw passal ngeen dem c'est dommage ni ñoo yàq na la leer sa bop mom c'est dommage gis nga milia man duma sa morom gis nga seen complot bi ngeen ma complot lépp la xam complot bi ngeen ma complot xamna naa lépp man bu len ma doflo gis nga 1 million bii ngeen di ngawti ngawtee di ko wax 1 million boobu preuve lay xaar preuve rek laa ci wut su ko ci amee rek lépp leer. Hmm, waaw Ndeye jaaxle xuuma jaaxle naa xuuma jaaxle ah! yow. bi nga nan ma nan dem nañ dem wax sil gawal pour man ci géer gu tabee nga nuy yob àll finti bi nga xam ne yorul dara waxam ñaar téeméeram yi mo waral waxam ju bari ji ki melni ku bon man kay duma ko mima ñu bax ñi nek fi di def taranga ah, musa me nga kan du man di ko neub te mom ki mom daawul def ni man dal day musa job mi ma ci mbirum nak ki neexul ah moma jaaxal de mo mom isunu ndox ak lu ne mo waye nak wax na la deug geewal yi dañ cee war a boole di yi ndax nag boo liggéeyut doo am li nga bëgg de lépp géer ñi mënuñu la koo may waaye nag par yenn saa nga tasee géer gu tabe de teyel boo ma yóbboon ci ku mel ni Pape Dumba yaa maa nu seeti euh, euh, tubaarkàlla sa tub euh, doomi ma doomi Adja maam na koy jaxate ji. teyel nii teyel nii ñu këram léegi xam nga def nan ko pa jëlee taxi nan jëm na lag nag seeti malik lay nan ko jëlé tax ndax ndax tey nday ñatam nañu de. ba ma seeti maam Rama sama géer ga ca Maris. nan lañ seeti malik Malick laa Diouf moom du du tas yaakaar. Malick de xaw ma anamut du boobu téye suñu ñaar tableau bi fu mu sama copain bi la commandé woon. non tableau bi si la nekkoon naa ah, presque pare naa ah. ah. li ci des ay finition la rek xam naa normalement fii ay 6 war na pare. il t'aime aime tellement les noonu la noonu la noonu la. xam nga liggéey moom bu ñu la ko joxee foog nga gérer comme mm-hmm. waaw soo ko yàkkamtee du baax. oui oui. j'attends un copain. parce que dama ñu demoon environ ma ne ko mu fekk ma fii quoi. ah ok d'accord. ay eh, il est là sax. ah ok ah, eh, bien Ali. na def ça va bien ça va bien. xam ah, ah, nga ko Jean. ñëw toog ma jënd café ma ñëw. ah dégg nga waaw antan ok d'accord.

ma nga désolé maa ngi ko yërëm peeru yërëm goo xam ne wóor na yàlla mu nga stressé wu stressé wu man affaire bi daal man man yéem na ma man. je suis au courant de ces problèmes yi la fille que tu as enceinte je suis au courant je suis au courant mais euh, loolu loolu sax taxul ma woo la li gën a urgent li gën a jàmp ah moom mooy la famille de la fille ñoo nañu gis buuba. looy wax nii. ah ouais ñoo nañu gis ko té li ci gëna étonnant moy que Bouba jël na len en vidéo la fi a tout raconté. qu'est-ce que tu me dis là lan ngay wax ni. non non non dafa lank man nak amna problème trop lu man naqari parce que bête nga ma. ya dal dama la ko faté won wax faté mo ko sama xam nga rek ñemewu ma la ko won wax xadi dafa ma méré xadi waaw man maa ko tooñ sax parce que euh, sama papa momo wo na ne ma naa convaincre xadi pour mu yak ëmb bi wa li lak lam lib la ah wax lol legui après mune ma na yem ci entre man ak mom legui man tam ma dem wo xadi waxoo ko legui xadi nak amul lum ma waxul ba pare bolé ci teg si naan ma man complice la man te man xawma lutax mu wax ma lol nga xaar ba lolou jall nga dog mako wax yow yaboo ma de sa papa moma ma yab

yedd yërëm ko gën certes waroon naa la expliquer dès le début mais lu ma dal la loo xam ni xamuma sax nan la ma dale mais le problème c'est pas ça nga ni buuba dafa def benn enregistrement il a fait te tu sais ce que ose notre notre ami mais doful laa lay wax xanaa l'histoire nag maa donné raison parce que yow da nga ni woon le sensationnel mooy dox te risque de tomber nag ci biir piège boobu non j'étais juste en train de respecter ses principes ah. Mais Bouba Dafoul, il n'est pas fou de prendre une vidéo compromettante pour moi. Regarde, je m'en vais de ce pas qui mom. je vais tirer ce problème au clair avec moi. Ah, en tout cas, tu es averti. dama la ko ñaan rek bu ko wax dara de yow tamit loolu nga def neexuma te du sa je m'attendais pas à ça venant de ton papa loolu du waxam. je sais maman man juste dama doon defar rek moo taxoon ma ko wax xadi mais xaw ma woon ni pour leneen la. gare à ce que nag ma bañ ko dégg si làmmiñu keneen ku dul yow làmmiñu keneen bu fa jógee ne toog sama biir nopp bi dinaa ko lijjanti ak sa papa parce que sa papa yebbu ma ñaari yoon.

qu'est-ce qui se passe. ah donc may ah d'accord ok c'est bon Togal. tu oses me demander ce qui se passe. Ah, je t'en prie Ali Togal, tu es très énervé xaw ma lan mais Togal. Togal, on va discuter on va discuter Togal. Sans trop nga maman. j'ai senti déjà l'énervement ça me mais j'étais chez le coiffeur maintenant dis-moi qu'est-ce qui se passe. tu oses me demander ce qui se passe Massar m'a tout dit. Massar. tu as ta possession une vidéo. Hein? très temps pour moi. Qu'est-ce que tu veux en faire lan nga bëgg a def ci vidéo boobu Attends, je ne pense pas que tu vas me faire comme les autres. comme les autres quoi. xam nga bu baax li veux lay wax mais yow nit nga Bouba yow nit nga. <laughs> ah là là là allez. et et là ça te fait rire aussi. Non, parce que tu doutes de mon amitié par rapport à toi. Massard, quand tu m'as dit Massa, j'ai tout compris. Massard, que ma entreprise. Je sais qu'il n'est pas content de moi. Aujourd'hui, il tente de détruire notre amitié. Il me l'a Voilà ce que la vérité. Les gars, parce que la famille est venue ici me voir. Parce que simplement, je suis ton ami. Pour que je puisse te parler. Mais tu me parles d'enregistrement. De quel enregistrement De quel enregistrement Gisnga, je te connais très bien. J'espère, mon frère. J'espère. te gis nga comme tu as l'information tu sais très bien ce que ça passe et je pensais que tu dois me soutenir dans ces cas pareils. je suis en train de soutenir mon frère tu sais ce que je veux ce que je veux savoir la famille est venue me voir j'ai l'information mais il n'y a pas d'enregistrement il n'y a pas de vidéo ça il faut qu'on soit très clair Tu n'as pas de vidéo une vidéo tu as ma parole mon frère mais non tu ce que je veux c'est que toi qu'est-ce que tu décides Ramon l'a décidé je veux tout simplement m'en débarrasser c'est-à-dire tu veux faire avorter la fille mais bien entendu il calculer ce que que je suis professeur et un éducateur de surcroît tu ne mesures même pas les conséquences néfastes que cela pourrait engendrer au sein de ma famille ma fille aussi donc tu bu allez les conséquences dont tu parles là, fallait y penser avant. Cette fille-là, elle n'a que 21 ans. 21 ans. En plus de surcroît, elle est l'amie intime de ta propre fille. Elle a fréquenté ta fille. Tu as voulu l'aider. Au prétexte que tu, tu voulais l'aider, ce qui est arrivé est arrivé. De toute façon, il n'y a pas de problème. La famille, est venue me voir. On a discuté. J'attendais de te voir. On s'est compris. Maintenant, moi, le, conseil que je te donne, allez, c'est d'assumer. Ton yalla, ton loi, allez. Mais je comprends ce que tu dis, mais demande-le. Ton yalla, ton loi. J'ai fauté à un moment donné de ma vie. Il faut que tu l'acceptes. Et que tu l'assumes. Je sais que j'ai fauté. Mais là, il faut que je m'en débarrasse. Ah Il faut que nous dindions nous dire une bonne fois pour toutes nos clauses de Mais allez, est-ce qu'il y a à réfléchir ce J'ai énormément réfléchi. Tu sais, tu J'attends tout simplement ton indulgence et ta capacité de me prouver encore que tu es mon ami.